rafetlu suñu ànd ak yéen ci biir suñu gal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci biir jotaayu xibaar ñu ànd ak yéen jukkil leen ponk a fës doore ko la xew ci hôpital dalal jàmm yi fa nekk ànd nañu wax njàkkare leen fekk si ci ba seeni lal dañ ko gën a yaatal ci biir xibaar yi baccalauréat 2021 résultat yi tàmbali nañu ko dal di ah, nemmeeku fu ci mel ni raison bu Thiès Diourbel ak fi nga xam ne moom moo di fi yenn école yi nekk ci biir Ndakaaru yi les résultats ah, nag dafa mel ni daal dafa gëllngoose ci bu ñu ko méngalee ak résultat yu atum 2020 ñu àddu wax ci leneen bilan bu accident ba am ci njum mi yokk na fukki nit ak ñeent ñàkkaar ñàkk nañu ci seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci l'observateur mu xëy xamle lu ni mel ñetti nit ñàkkaar nañu seen bakkan dooleeku ca fukki nit ak benn mu doon fukki nit ak ñeent Amidou Sidibé mi faat Lobé yi daal dinay indi ay leeral ci naka la daal di faatee Lobé Ndiaye mi ak lan lañ jotee ñoom ñaar ba mu daal di koy faat dañ nañ leen ko fàcceel ci biir xibaar yi Abdoulaye Diop Khass dem na ca Gambie ginnaaw nag cortège bu takku bu président Adama Barrow moo ko jël si ni ki démb ca këram ngir nag mu dem ca Gambie lu tolloog fukki fan ak juróom yi mu fa war a def demuk Abdoulaye Diop Khass ca Gambie danañ leen ko gën a faram fàcceel jeexale xibaar yi ak tolluwaayu mbas mi ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé de l'action sociale amal tey ci talaata yemook ñeenti fan ci weeru août mbokki xarit li mooy di ci ponk yi ngeen taaxir faram fàcce ko asalaamaaleykum mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyoo ginnaaw ni ñu leen ko junjee woon ci boppu xibaar yi noonu la ñu koy faram-fàccee doore ko hôpital dalal jàmm taw bu méttee métti bi am ni ki démb moo feesal hôpital ba dell ak ndox saalu patient yi nag eh, ñoom demuñu dara demuñu des ndaxte dafa eh, dal di fees del ak ndox ba patient yi sax ànd ci ak njaqare bu ñu sukkandikoo ci ay vidéo yoo xam ne daanaka tasaare nañu ko eh, ci li nga xam ne moom moo réseaux sociaux yi patients yi di sàkku ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk hôpital boobu def ci seen kéem kattan ndaxte sonn nañu ci li nga xam ne moom moo di taw démb bi baccalauréat 2021 résultat yi tàmbali na di daanu bu ñu sukkandiku ci li nga xam ne moom moo di l'observateur résultat yi ñu jot firndeel ca Ziguinchor ak ces ak fi nga xam ne moom moo di ci Diourbel ak yenn école yi nekk ci biir Ndakaaru ca Ziguinchor ñoom résultat ya daal demeewul noonu ci téeméer boo yi ñoo am bis bu ñu demee ci lycée technique bu Cheikh Ahmadou Bamba bu Diourbel am nañ ay résultats yu baax yoo xam ne sax daal di ni ka am nañ ay mention ak li nga xam ne moom moo di ay passable ñu àddu wax ci leneen convocation bu docteur Babacar Niang bi nga xam ne moom la woon wu ji ni ki euh, tey moom docteur Babacar mu jul dem ay kàddu yu koy firndeel bu ñu sukkandikoo ci Zik FM nee na dafa dal di feebar li te day xaar li nga xam ne moom moo di deuxième contrôle ba tax na dafa certifié li nga xam ne moom moo di boobule convocation ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay avocat ndax dafa am certificat médical boo xam ne mi ngi toll ci ñaar fukki fan ay avocat mën nañoo dem ngir dal di koy indil ay leeral ci lan moo waral ñu dal di koy euh, convoqué bilan bu accident ba am ca njum euh, dal dina yokk fukki nit ak ñeent ci ñàkk seen bakkan ginnaaw fukk ak benn yi nga xam ne moom la ñu doon wax démb tey nag waxaat nañu fukk ak ñeent liy firnde firndeel na ñetti ci ñi nga xam ne ñoom ñoo amoon blessé yu graaw yi dal dinañu ñàkkaat seen bakkan ab membre de famille ñoom ci la ñu bokk ginnaaw bu ñu jugee woon fii ci Kër Massar doon jaale si benn famille boo xam ne dañoo am ku ci wàññeeku ginnaaw bu ñuy ñibbi nag lañu def def boobule accident chauffeur bi nga xam ne moom moo doon dawal la wax ne daf doon nelaw perte contrôle ba tax mu dal di fekk ci beneen oto ba boobule accident ba fukki nit ak ñeent jot bakkan ña fa desoon te am gaañu gaañu yu métti yi dal dinañu leen di évacuer ci hôpital principal bu euh, Ndakaaru ñu àddu wax ci leneen lu doy waar li ñu ci euh, nguurug Sénégal rawatina ca assemblée nationale ay nit yu wàññeeku euh, ci jàngoroy coronavirus ki nga xam ne moom moo di Thierno Diaw di comptable bu assemblée nationale daal dinay wàññiku euh, ni ki euh, démb euh, ci altine ji denc nañu ko tey ca jaxaw ca Fatick ñu koy ñaanal yàlla xare ko ci àjjanay firdawsi suñu gaal 24 di jébbal ak njaalam képp ko xam ne yaa nga ci assemblée nationale ca Tambacounda defkatu ñaawteef ya moom dafa mel ni dañuy profité ci taw bi ngir nag dajji ay boutique banque yaak lu ni mel ba tax na askan woo fa yeewoo dal am nañu njaqare ak tiitaange seen kaaraange li xew ci quartier Kourel Diadji ba xew eh, fa eh, ba ca eh, Tambacounda ak quartier Médina Koura ñoom nag li ñuy wax ne du ñu porter plainte surtout borom boutique yi nga xam ne dañu leen di dajji ndaxte dañuy yàq seen ngalawal gémmiñ ndaxte du benn liggéey boo xam ne rek ñu ngi ko ciy def ngir indi leen ay saafara ci lu ñu mel étudiant bi déguisé woon doon def examen place xale bu jigéen boobu nga xam ne moom moo di Ngange Dioum di ab coroom moom nag ay mbokkam dal di nañuy indi ay leeral ci seen doom jooju nga xam ne moom moom la ñu dal di eh, teg la xool li mu jot a xamle mu di ki nga xam ne moom moo di Xaadim uh, Mbub di seen doom jooju instant yi dafa am ay traumatisme uh, ginnaaw li nga xam ne moom moo di lii de coow dafa am lu mu joué ci boppam ba tax na daal àndatul ak xelam uh, ci bu sukkandikoo ci kàddu yi ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay frèram ak ay sëram ndax nee dafa dem ba li nga xam ne moom moo di commentaire yu ñuy wax ci réseaux sociaux yi daal di koy ëpp doole Amidou Sidibé mi coowam bëgg ëpp loxo mu di moom mi rey Lobé Ndiaye daal dinay janu ak enquêteurs yi ba noppi daal di andi ay leeral ci ndaka la def ba faat Lobe Ndiaye moom moom am Amidou Sidibé nee a ci bis bi muy fàtt Lobe Ndiaye dafa ñëw ca këram mu waroon ko defal benn liggéey boo xam ne xaalis la bu bari la ko ci fay liggéey ba parewul mu ne ko nag dafay dem ba beneen yoon Lobe ne ko bu liggéey bi parewul dinga nga jël sama bakkan wala ma jël sa bakkan noonu la coow daal di tàmbalee am ci seen biir ba Lobe Ndiaye jël kuur njëkk ko ko doon mu daal di mu daal di indi coow loo xam ne ci la Lobe Ndiaye moom mu lay faatoo du lu mu bëggoon ndax bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom yi mu jox xalante ak enquêteurs yi ba tey ci atum 2009 ba léegi la xamoon kii di euh, Lobé Ndiaye moom nag daal dinañu koy euh, defere moom ak ñi mu àndaloon ci bi muy euh, sànni kii la di lobe Ndiaye di Awa Sow mi ñu ne xaritab lobe njaay la ak sëfooru taxi bi di Daxa Soumaré ñu àddu wax ci leneen coowal nawet bi ci réewum Sénégal ndox maa ngi tàmbalee di fagagal ñu dem ca Thiès ñaari taalibe yoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci ndox mi ginnaaw li nga xam ne moom moo di liggéey yëpp autoroute péyage bi jugee Thiès jaar mbuur te ñu gasoon fa ay kamb ñaari xale yi taalibe ñoom ñoo fa dal di lab nag ba ñàkk ci seen bakkan ci fi nga xam ne moom moo di ca kër ma Massamba Gueye mu di Mansour Maguette Mansour Ngent am fukki at ak benn dëkkoon ca Kaffrine ak ki nga xam ne moom moo di Dame Loum sàmb am fukki at dëkk ca Kaba seen ay néew daal nañu ko yóbbu ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène ba nekk ca Thiès ngir amal ab autopsie ñu demaat ca Ndioum ginnaaw accident ba fa am te fukki nit ak ñeent ñàkk ci seen bakkan président de la République di Macky Sall moom nag daal nay defoon démb ab tweet ngir mettitlu na ak bi dal ci kaw famille yooyu ba noppi daal di jébbal ak njaalam yemu ca yëkkati nañu lu tolloog ñaar fukki million ngir nag ñi nga am ay gaañu ak famille ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkk ay euh, bakkan Astar mi nga xam ne moom dafay def musique waaye terewul mu ngi doon def li nga xam ne moom moo di examen bi di baccalauréat daal dinay am euh, li la di examen bi maanaam diplôme bi nga xam ne moom la doon ut ci mention très bien nekk itam première centre bi nga xam ne fa la nekkoon mu doon mbégte ci Astar waaye itam ci jege ñaale Astar ñu koy ñaanal li nga xam ne moom moo di diplôme boobu yàlla na ko jik Baye Fall bu wiiri wiiri mi doon wax wér gu yaramam fu mu tollu ay jafe-jafe yu mu dund di te doon sàkku ci sénégalais yi ñu jàppale ko ngir nag mu mën a faj ay gëtam ginnaaw li nga xam ne moom la war a def mu di opération laser boo xam ne dañ koy génnee réew mi dem faji ko kii la di moo get di doomu Sénégal bi moom nag nee na jël na en charge kii di Baye Fall ngir jàppale ko mu faj li nga xam ne moom moo di ay gëtam ba lépp lu ci war daañ ko def ngir jëflantiku ak ki nga xam ne moom moo di Baye Fall coow la am ca Dakar dem dikk mu mel ni jeexagul ginnaaw bu Amar bun Xataab si la wutoo ki nga xam ni moom moo di eh, kii di maître Moussa Diop eh, te ba muy dem moom Amar bun Xataab si la waxoon na rek ne maître Moussa Diop dafa créer ay emploi eh, fictif yoo xam ni ñu ngi toll ci ñaar téeméeri emploi lii la di syndicat bi nag daal dina ñuy sàkku ñu daal di fësal li nga xam ne moom moo di audit bu personnel boobu ngir ñu mën a xam lan mooy emploi fictif yooyu ndax bu ñu xoolee li nga xam ne moom moo di lu tollook ñaar téeméeri employé ñu fay wax daal jàpp nañu ni xel nangu ko bu ñu sukkandikoo ci euh, li nga xam ne moom moo di euh, lii di publication bu secretaire général bi def di ma Masseck Ndiaye ci euh, Facebook Abdoulaye Diop Xaas demati na ca Gambie ginnaaw bu muy jëflante ak ki nga xam ne moom moo di Adama Baro diggante Xaas ak Adama Baro doonatul lu ñuy lam-lame ay weer ci ginnaaw moom Abdoulaye Diop Xaas demoon na ca Gambie ki nga Adama Barrow recevoiroon ko bi yoon nag demaat na ngir diirub fukki fan ak juróom ngir nag dem jafe-jafe yi nga xam ne ñenn ci askanu Gambie ñu ngi koy dund ak la wër Gambie yépp ngir ñëw xas mën a daal di faj seen euh, jafe-jafe mu mel ni démb ca këram fu waay sànni mbàtt mu takk ndax président Adama Barrow moo ko yónnee li nga xam ne moom moo di ab cortége bu jël si kile di Abdoulaye Diop xas ngir mu dem ca euh, Gambie ñu wax ci Babacar Ngom bu Sedima dafa dal di am jafe-jafe ci wàllum escroquerie ba tax na daal ñu dal di teg loxo ñaari nit yoo xam ne seen loxo jugu ci mu di Momar mbay Tamsir Ndiaye nekk nekk chef agence Ora Banque bu Thiaroye ak ki nga xam ne moom moo di nday Penda Ndiaye Ndeye Penda ña euh, ñoom ñaar teg nañu leen loxo placé nañu leen en garde à vue ni ki démb bu ñu sukkandiko ci l'observateur coowal immeuble loo xam ne xaalis bi mi ngi toll ci juróom ñetti milliards seen diggante ak ki nga xam ne moom moo di euh, Babacar Ngom bu Sedima ba tax na waa division des investigations criminelles euh, dal di ci def boobule liggéey ba ñu teg loxo ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci moomule euh, mbuxum ñu jeexale xibaar yi ak tolluwaay mbaas mi ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé de l' action sociale amal tey ci talaata yem ak ñeenti fan ci weeru août ci te suñ jot a def ñeenti téeméeri nit ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ñu dellu siwaat am doomu jàngoro bi ñaar fukk ak juróom-ñeent ñaakaar nañ seen bakkan dooleeku ca lim ba ñàkkoon seen bakkan ñeenti téeméer ak fanweer ak ñeent ci ñu entré woon ci hôpitaux yi weer nañ ba ñibbi seen i kër juróom benn fukki nit ak ñett ñu ngi Sowétas tax ñuy sàmmanteeg gu yaramu doomu aadama yi di ci lekkoog ministère de la santé et de sociale di sàkku ci askan wi ñuy gën di woyal digle yi bàyyi tere yi bokk nañ ci takk masque laal zel respecté dandante bi te bàyyi dajaloo bi mbokk yi xarit yi lii lañ leen doon dëgtal ci ay xibaar fii la koy ndaar keppe ñu ñaan ngeen di woy suñuy programme di leen ñaanal fanaanum jàmm am te leen di jox dig daje ëllëg incha allah.